sëriñ Alaaji Sylla moom sëriñ ma Sylla Ndaak mooy doon a ñëw waaye nii mu dikkee kat xam naa yeex gee ñëw moo ci xaw a tane ci taalibe yi ndax bu teeloon a ñëw bu joxee addiyam boo woytuwul ñu bari rusa joxe seeni addiya wala ñu rus koo génne waaye nag yàlla baax na bi nga xamee ni addiye yi bu demee ci sëñ Muntaxa rek dañ koy biral ca kaw foofa lañ koy birale waaye fii nag moom ñun duñ ko gaaw a biral waaye danañ xam liggéey bi fu mu tollu sëriñ Alaaji Silla moom sëriñ ma Silla Ndaak nekk na directeur presse arabe jiite mboolem kuy jàng arabe ci senegal ca ministère ba jàngale na arabe ak français ubbi na fi ab rajo rajo énergie FM jàngale na Alquraan waaye bu nekkee ca Ndakaaru toppul coowul ndakaaru la dégluwul coronavirus toppatoowul mbirum coronavirus waaye toppatoo mbirum sëñ Tuubaa rek ba indi addee ji mu fi indi danañ ko sant bu baax moom mbooloo mi topp ci ginnaawam ne mbooloo mi topp ci ginnaawam muy seen jëwriñ dinañ ko sant bu baax ne mi ngi koy ñaanal bu baax moom mbooloo mi taalibe yëpp. li ma waxoon rek mooy li wér wax ko ci sëriñ Mamoun Dia wax ko ci keneen wax ko ci keneen mbir bu fekkee ni moom dongay sa yitte nga def ko muy sa yitte nga diis ko suñu borom mbir moomi suñu borom dana la ko fajal te doo ko yëg dana la ko defal na ko bëggee te doo ko yëg ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama soxna fatimatu bint ab taawam da koo musa ni ko yow day da ngaa wax ni Seydina Jibril moo la wax ni sa borom tere la nangam sa boroom tere la nangam nga wax ni Seydina Jibril moo la wax ni nit lu mu am yàllaa ko ko jox mu ni ko waaw ñaar yëpp de maa la ko wax mu mu ne ko waaw lu tax lee suñu borom di ko tere ba noppi ñun ñu ko bëgg di ko am lu tax julli di gëm sa borom ñi am tuuti ñi am lu bari sallallahu alayhi wa ni ko li nga laaj day day laajub gone waaye nag dinaa la ci tontu suñu boroom du koo xam ni dañ koy mesurer dañ koy natt sunu boroom yaway nattal sa bopp boo jógee di yalwaani ni kilo pepp laa bëgg kilo pepp rek la la suñ boroom di jox bu sa moroom jógee ni man de fukki barigoy pepp laa bëgg balaa dëpp suñ borom dina ko jox fukki barigoy pepp ndax benn kilo pepp ak fukki bërigoy pepp ñoo yem ci suñu borom kon nag kenn ku nekk la nga bëgg ak na ko dagaane suñu borom noonu la la koy joxe rek kon nag sëñ Alaaji Sylla lu ndakaaru soppiku soppiku mu dogu ci danaa joxe addiya ju tol nii ñu joxeel ma ko ci Serigne Touba. faw yàlla defal ko ko te du ci sonn ne du ci sonn sax kon nag nee na nee na mi ngi koy seereel ni nii ko suñu borom noppale ci àddi ji Serigne Touba noppal ko ci noonu lay noppaloo ba faw ba ba muy dem àjjana te dafi yàgg lool nag door a dem àjjana waaye lépp day yomb da ko yomb yéen ñi ko yaakaar ne ci ginnaawam ngeen xam ni seen mbir lépp day yomb suñu borom dootu jafeel dara ñaan nañ ko suñu boroom na ngeen gën a góorgóorlu bu baax te jàpp ci moom bu wér te xam ni koo xam ni li nga jàpp lu wér la te am na fu mu jëm fa mu jëm mooy fa rasulillahi nekk fa mu jëm mooy fa Serigne Touba nekk dañ koy jàpp ak suñu fukki loxo te sëñ Alaaji Sylla yoon woowu rek la jaar maa ngi leen di digal ngeen jàpp ko ak seen fukki loxo te bañ ko yemaleeg dara jërë ngeen jëf waa tàllal waa njarab